Euh, njàngum cosaan ndax ñu nit amoon nañuy école lël ci la bokk euh, leneen ci la bokk bu ko defee yow nga dikkal ñu ci loolu waaw asalaamaaleykum alaaji taal euh, ñu ngi lay nuyuwaat fii nga xam ne réew la moo xam ne réew mu réew moom mii ne ñëw la mu <laughs> ñu la ci félicité bu baax di la sant bu baax a baax mm-hmm. di gërëm nag mbokki Fatick Euh, rawatina sama chef de service bi nga xam ne moom moo jógee léegi ci antenne bi di Cheikh Yabo jëpp inspecteur d'académie bu Fatick euh, moom bam fi ñu def na fi un an ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, fii mu teg tànkam yàlla na ko yàlla dëgëral waaw di gërëm aussi mboolem personnel bi fi ne waaw Alaaji Taal wax nga dëgg ndax ñun tamit amoon nañu façon wu njàngin boo xam ne dañ ci daan jànge di ci former ay nit waaw ba bu ñu génnee ci njàng mi doon ay nit ñu am xam-xam doon ay nit ñu am valeur doon ay nit ñu am métier te loolu defe naa ne euh, moo xaw a copier njàng mi li li ci ne rek mooy njàng mi boo ci génnee da ngay mën a bind waaw mais loolu rek mooy différence bi su ma ko dee seet. Euh, am na tamit une autre différence boo xam ne euh, nekk na ci mooy léeg-léeg da ngay gis koo xam ne day jàng ba ami diplôme mais dafay am lu ko manqué te loolu nag moom lañ daan jiital ci njàng ma woon démb. exemple bi ma la ciy jox mooy dangay gis koo xamante nii day jàng ba ñu tuddee que euh, un docteur jàng njàng am diplôme yu kawe lijaasa yu kawe euh, par exemple koo xam ne il a son doctorat en gestion financière koo xam ne dafay jàng wàllum koppar ba am ci diplôme bu kawe xam nga diplôme bi may na ko euh, ñuy jox ko fonction jox ko nomination jox ko salaire jox ko ay moyen ba pare nag yëkkatee xaalis jox ko pour mu investir ko fenn mais tey jël salaire bi jël nomination bi jël li nga xam ne lañ ko jox pour mu investir société bi mu def ko ci poosam wala mu def ci lu ko neex kooku jàng na am na diplôme am na xam-xam mais dafa lu ko manqué mooy valeur u doylu loolu la amut waaw loolu nag dañ koy faral di gis ci société bi te loolu nag moo nekkoon fooru démb waaw waaw <laughs> léegi léegi nag ñun suñu société ñun amoon nañu euh, éducation boo xam ne ci quatre ans la daan tàmbale ba xale bi mënee wax rek njàngaleem tàmbali na ba ba muy génnee ba ba muy jàngee ba ba muy amee métier waaw ñun dañ naan topp nit ba mu am xëy am métier mën a yor kër éducation soog a jeex noonu lañ ko daan defee ni ñu ko doon defee mooy xale bi su amee quatre ans muy góor muy jigéen dañ leen di boole waaye foofu classe bi mooy ëtt bi heure de cour yi mooy bu ñu reeree ba noppi professeurs yi jàngale mooy maam mu góor maam mu jigéen liñ leen di jàngal ay léeb lañ leen di jàngal waaye xam nga xale munoo ñëw rek jàngal ko brusquement leçon bi nga ko bëgg a jox kon du ko dégg day nelaw sax waaye da ko koy defal ci benn kont muy reetaan waaye ci biir loolu da nga koy jàngal li société bi bëgg ak li société bi bañ. ak li baax ak li bon mu teel koo xam di ko woyantoo di ko léebantoo bu ñu wéetee sax ñoom seen ruq da gis ñuy jéem a répété waat léeb bi ni ko maam doon léebe waaw bu demee nag ba passé foofu dugg ci fukki at. jëm ci kaw nga gis ñu séparé leen léegi góor ñi école bi tas na léegi góor ñi ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña ñu def séparation totale foofu école bi day toxu école bi fan lay toxu yoonu gétt ga yoonu tool yoonu taxani yoonu dem rooti yoonu witi mbuum foofu la école biy toxu professeurs yi mooy nijaay yi mooy mag yi ñu ñooy seen i ñoo leen di jàngal foofu nag day xaw a métti parce que foofu da ngay gis ne éducation bi dafay changé carrément danañ la wax nga def te doo ci teg baat da nga gis te doo nettali danañ la bàyyi ak sa morom ngeen xeex kenn du leen àtte nga jàng défendre sa bopp nga jàng xam ñen ñooy say morom foofu dañuy def ay maas xam nga maas léegi daanaka amatul mais amoon na ci jigéen ñi maas génération am na ci góor ñi tamit foofu ngay commencé di jàng liggéey foofu nag période boo période dafay yàgg parce que lu tax mu yàgg mooy fa ngay terminer njàng mi dañ lay évaluer bu ñu la bu dee góor bu ñu la évaluer ba xam ne am nga fit am nga jom te doo rusloo sa famille muy géño gi muy meen mi bu fekkee ne doo leen rusloo nag ca leen lay soog a waajale dugal la lël ndax booy duggul lël épreuve la boo xam ne am na loo xam ne boo ko ci wonee rek yàq nga askan wi nga bokk waaw yàq nga askan wi nga bokk <laughs> boobu da leen di jaral sax loolu bu amee dootuñu dem ci pénc ma sa yaay dafay rusa dem teen ba sa wéyjur dafay rusa dem pénc ma sa nijaay dafay a dem pénc ma léegi doon na andi sax ay nit toxu ndax loolu kon loolu balaa ca soo doom dee dugg da nga koy évaluer da nga koy natt ni nga koy natte nag ay épreuve la yoo xamante ne nii xale bi su demee ba dëgër ba ñu commencé dañ koy njëkk a jox yet jox ko ay nag ne ko demal sàmmi moom kese ci àll bi mu yor lu bugg a mat fanweeri nag ñeen fukk juróom fukki nag te benn mag benn nag du ci manqué loolu xel a koy def waaw ba pare da ngay am fit ndax fi ngay dem doo ànd ak kenn ba pare ñoom duñ la bàyyi noonu dañ lay gunge mais doo leen gis dañuy yéeg ci kaw garab di la xool di la kari fenn di la xool ba xam yow boo wéetee ci àll bi lan ngay def yow rek ak yàlla ci lan ngay ne danañ ko xool ci yow ba pare danañ xool ndax am nga fit gétt gi xam nga gétt du nekk ci biir euh, ci biir dëkk day xaw a sori des fois sax day dem ba sori lool buñ ñëwee barata nag yi ba timis gi dugg dañuy ñibbi bàyyi la ci gétt gi yow yaay fanaan ci gétt gi yow kese taalal la fa waaw taalal la fa ñaari matt muy muy tàkk ñu bala fa. danañ dem sax ba léeg-léeg bu ñu demee ba 4 heures 3 heures du matin ñu ñëw xëbale yëngal la ba xam ndax am nga fi itam déet ba xam yow nooy réagir loolu épreuve yooyu yooyu dafa bari mais boo demee nag ba réussir ko nag ba réussir ko nag ñu xam ne kii am na fit kii du daw du tiit ci leen lay soog a dugalee néegu góor foofu nag mooy université bu mag ba boo demee foofu lépp lu newoon ci yow te du lu lu société bi bëgg. fa lay deñee fa lañ formé nag ba nga nekk góor dëgg foofu ngay demee ba xam ne ñi dëkk ci dëkk bi te maaseeg sa baay ñoom ñëpp say baay lañ fa lañ lay jàngalee ne ñi ci dëkk bi te sa yaay ñoom ñëpp sa yaay lañ fa lañ lay jàngalee ne boo amee ñaar da nga war a jël benn benn bi nga delloo ko société bi fan lañ lay jàngalee ne la réew mii boo ko fi fekkee ay nit a dee pour yow nga mën a ñëw dund kon yow warta yàqoo ci say loxo fa lañ lay defalee civisme buy tax bu ëllëgee bu ñu naree teg société bi lu jaaduwul yow yaay ne ci kanam fañ lañ lay former loolu formation militaire dafay am loolu yëpp dafay am ci lël bi lay amee loolu mooy ku góor ki agsi na ba ci université bu dee ko jigéen gi nag kër bàjjanam wala kër tàntaam fa lañ ko yóbbu mu defi fa formation te du neex ndax boo demee kiñ la jox muy sa bàjjan dana la yar ba nga defee ne dalaa bañ moo lay jàngal liggéey moo lay jàngal ni ñuy recevoir gan moo lay jàngal ni ñuy xoolee moo lay jàngal lu ne xam nga dafa xam nga jigéen dafa am gaaf li ñuy wax gaaf mais bu ñu la ci bàyyee boo ci wéyee pour ngese yi dafay jafe parce que jigéen du woddoo càmmoñ waaw loolu sax bajat moo koy dindi jox mooy eh nii baaxul waaw nit du def lii nit def la noonu leen lay formé ba ñu ba mu ba ñu xam ne yow mi bu ñu la mayee nga dem sëyi doo leen gàcceel waaw xam nga yooyu yooyu gaaf yi duñ ci dugg mais dafa xaw a garab parce que am na mag ñoo xam ne bu ñu la xoolee rek. Mhm. xam ndax yow jabari kilifa nga wala déet. xam yow ndax jabar juy tëjji nga wala déet. Mhm. yooyu nag xam naa ne mu kii na la waaye yooyu ba léegi mi ngi am. waaye loolu nag ñi lay yar ngay jigéen ñoo koy dindi ci yow. Mhm. ba mu set ñoo lay defar ba nga xam ne yow bu ëllëgee boo demee sëy doo siis doo dàq gan da ngay yaatu da ngay mën a togg da ngay mën a liggéey te doo onku te nekkul ne lu ñu la def nga wax ko waaw ki nga bokkal néeg bi muy sa borom kër. nekkul ne lu xew ci seen diggante bu ëllëgee nga nettali ko te loolu yëpp dañ la koy jàngal dañ lay jàngal la jàngal yooyu ba mokk sa bajan doog laa jël nag si la wala kalay ñaan ñaani sax fekk la foofa ñu maye la nag dem tëddi nelaw ndax xam nañ ne doo fay wala boog boo ko defee nag dañuy mën a wat ci alxuraan ne dañ laa tooñ dañ laa def lu defuwut waaw loolu nag mooy université ku jigéen ki buñ paree nag mu des nag formation wu métier kii yar nañ ko ba dugal ko néegu góor bu mu génn ñu dañ koy delloo ji kuñ koy delloo ay mbokkam baayam baayam nag métier moom yoroon mu tàmbale koo def ci moom bu fekkee ne sa baay tëgg la dañ lay yóbbu nag delloo la sa baay ne la joxoon nga ñu doom jox nañ la góor yow yaa ci des nga fexe nag ba yow mbaar mii sa baay la ko joxoon nga di ci liggéeyal société bi di ci liggéey sob di ci am dara nanga ko mane ak secret yi ci nekk yëpp nga xoo ko ndax mbaarum tëgg tëgg yaa ñoo xam la fa ne man mosuma gis mbaaru tëgg bu ñuy tëj xëy na Ndakaaru am na fa <laughs> mais mbaaru tëgg yi ne ca àll ba kenn du ko tëj kenn du ko tëj kenn du ko tëj te kenn du fa dugg loolu secret la boo xamante ñoom ñoo ko xam dañ lañ koy transmettre am na beneen secret boo xamante nii ñun séeréer si par exemple séeréer si xam nga ñoom seen arme bi gënoon ak garaaw seen jamono fett la mm-hmm. mooy les en empoisonnées mm. mais tëgg moo koy defar jéng yi ñu daan jéng nit munut mm. xam nga dañ daan tëgg ay munut mm. munut bi ñaari nit a ko mën a tijji fara ak farba keneen mënu koo dindi bu la buur jàppee ñu atte la ba ne jéng leen ko buñ la jéngee ñaari nit a ko mën a dindi fara dafax mooy ki tëgg uh, munut bi ak farba te loolu ci ordre jaraaf lañ koy dindi waaye bu fi ñaar ñi newul jéngi bi du deñ sa kër la boo xamante ni tëgg yi ñoo koy defar loolu da koy jàngal sa doom mu xam loolu mooy formation professionnelle bi ñuy wax nii tey di ko moderniser mooy formation professionnelle léegi nag keneen ki nga xamante ne nii mooy waajuram moom ci famille bi nar a falu la bokk kooku dañ koy yóbbu mu jàngi administration baayam nijaayam bi nga xam ne mooy lul xam nga lul ak pal la mooy gouverneur lul seeseen dañu koy andi ci wetam mu commencé di jàng di xool su fekkee ne papaam mooy san gi njob papaam bu na wala ak ñu yóbbu ko foofu mu commencé jàng fonction wu san gi lan la ba pare defaale formation militaire am na ñoo xamante ay salmakoor lañu ñooy dañ leen di jàng ñu yóbbu dañ leen di yóbbu waaw ñu dem jàngi ngawar jàngi jub loxo jàngi xeex jàng loolu yépp dañ koy jàng ba mën ko loolu mooy formation professionnelle amoon na bu njëkk nii la daan demee kenn du taxawaal ba pare dafa am yoo xamante ne ni buur moo daan jël décret pas décret yi nga xam ni mais buur moo daan jël décret asamaan si bu xasee taw séeréer li muy bëgg ndënd yëpp kenn dootu fi dëkk kenn dootu fi tëgg doo gis ku mën a liggéey di taxawal ci dëkk bi amul loolu buur a koy tere asamaan si taw xale bu ko di taxawal ci mbedd mi asamaan si taw ku mën a liggéey dem tool ne ci mbedd mi taxawal doo ko gis loolu buur a koy tere hmm. waaw buur moo joxe ordre boobu ne loolu bu mu fi am doo ko fi dégg doo fi dégg ndënd mu bu kenn tëgg te ñëpp nañ bay ñëpp nañ bay doo gis kenn kuy taxawal ci mbedd yi waaw même li ñuy tuddee deuil euh, national hmm. xam nga deuil national dañuy wax tubaab yi moo ko fi andi mais ku ma dofeen def na fi deuil national hmm. bi ñu defee la surprise de Mbinogor en avril 1867 bi bët setee dafa def euh, day national dé euh, euh, décrété un deuil national boo xam ne lay tax mu jeex mooy ñu fayu ci liñ ñu def. maanaam illimité maanaam illimité da leen waxoon ne leen. fii ba ba ñuy fayoo liñ ñu def. Mm-hmm. lépp lu fi waaye mën a xewleeti ndënd bu ci bokk. ndax ñu naqarlu ñi nga xam ne daanu nañ ci fii. ba ba ñuy fay muy lu métti loo xam ne def nañ fi 3 mois yoo xam ne kenn tëggu fi ndënd ak loo mën a xew la ndënd ci ko kon loolu buur moo koy joxe ordre la te loolu civisme boobu yaa ngi koy jàngee ca lël ba muy ko góor ki muy ko jigéen ki waaw. waaw alaaji maa ngi lay sant bu baax a baax euh, di la gërëm. Euh, di gërëm aussi euh, suñu kilifa gi nga xam ne moom nga ñu seet si ndax moom la ñuy gunge ci waxtaan wi rek waaw di remercier nag waa 2S yëpp rawatina yow mii nga xam ne lépp lu xew siin ci aada ñu gis la. waaw jërëjëf maa ngi leen santu bu baax di leen